arrondissement Seri Cugu wér na ba del si ndeysaan Ousmane Badji sa frère a ngi noonu ndeysaan Seri may mu noonu ee eh, Cugu ziyaare naa la borom diaspora waaw waaw Kaja Maane borom Bunde waaw waaw waaw waaw Gadia Mané bi fi mu mujjee daa gaañ woon si loxo loxo ba tey mu ngi ko bandee waaw waaw yéen a ngi seen noonu si loxo bi ndeysaan band bi mais naan ko boor établissement rek dafa saf mbër boo dugg see doo laajte mbër moom moom Gadia Mané waaw rakk Omar Mané ak Siaka ndijaayu ko jënduur la ndeysaan ee ee rakk Ousmane Badji